kon ñu fëgg ne koŋ koŋ koŋ salaamaaleykum waa kii namm naa ko de ana

Euh, tey dañoo euh, dañuy ñëw pour wan leen euh, suñu produit yu bees yi mhm. en plus dañoo nekk di solde cheveux yi mhm. ba pare ak dañ lay wan ay produits pour visage soin soins pour visage ak corps ak euh, traitement accéléré traitement cheveux yi. dama lay bàyyi rek nga présenté nu cheveux yu baax yi euh, ndax man kañ gis nañ leen ko ci gën a jekk rek macha allah ku ci bopp bi gën a jekk rek macha allah ah Anna. waaw dinañ leen dem ci biir comme ça ma wan leen produit yi. Anna en plus de perruque yi nga xam ne rek won nga ñu ko nga xam ne bu ci nekk mi ngi ci gis naa ne tamit am nga yi nga xam ne mooy ay greffage. waaw comme perruque yi ni ñu leen ko wanee ak lees yi lii promo nouvelle an la comme ni ñu koy defee chaque euh, fin d' comme perruque lees ma takk nii. comme bi xool daal couleur bu la neex waaw couleur bu la neex lañ lay defaral mhm. euh, yii nii ay kii la yeneen greffage boo bëggee tam mën nga ñëw fii ñu tegal la mhm. wala ñu jaay la partissage léegi sax dafa am euh, lu bees ñuy def dañuy mhm. jaay léegi à partir de 10 000 waaw dañuy jaay à partir de 10 000 parce que cheveux yi euh, tuf bi dafa bëri 4 yar la looloo tax dañuy obligé léegi diko ko peser. diko diko di def détail daal. voilà di ko détail pour tey jii na mu manqué le da ngeen koy jaay lu mu. dañuy waaw dañ koy complété dañuy jaay par 1 mètre. suñu cliente yi xamné dañuy dem tout le temps ci Facebook bi mën nañuy dem foofu diñu xol di xol parce que dañuy tànn ci mois bi ben jour bo xamné dañuy solde cheveux même longueur 28 mën nga jékki-jékki dañuy gis ki. nga gis ko à partir de dix mille wala quinze mille. comme soin de visage yi li mom dañ ci insister bu baax pour borom kanam yi nga dafa am peau grasse. wala ñi xamné seen kanam yi dafa taaj da koy rafine eau de rose la. da koy dindi ba mu set lii mënoo gis euh, produit bu gën a baax que bii. waaw base maquillage en même temps. Mhm. soo maquillé woo dafay matifier sa maquillage. Mhm. am na tamit produits yi bii tamit si base maquillage yi la bokk. Mhm. day matifier sa kanam soo ko. maquillé lan bii tamit euh, crème la nii. crème waaw anti-tache yooyu noonu. balaa ngay maquillé nga koy jiital ba pare. yii nii soin du visage pour borom peau grasse yi. waaw da koy gomme ba mu set ak ki anti bouton yek tache noire yek yooyu yëpp lay dindi. crème pour visage. pour maman yi xam sen seen kanam yi dafay am ay taches. waaw moy ki bi ni réparatrice voilà mooy borom maanaam ku am tache yenn tache yi nga xam xéssal mom mo la koy jox euh, daf ci bax nga diw ko ci mu dal di dindi lepp mo xam ciéré la mo xam lu mu doon. waaw mo xam ciéré la parce que fi ni dañ cee am résultat mo tax. Mm. amna tamit yi crème rebord yi moy pour ñu leel ñi. waaw da fay dafay daf lay jox. karaw waaw bii tamit yooyu yëpp si la bokk parce que yi ay produit pharmaceutique rek lañ koy ci seen gamme bi nga xam ne macha allah boo koy euh, diw sa bopp rek sa karaw day daanu mel nu mu la neex mooy traitement capillaire bi mhm.

gamme boo xam ne am na diw am na savon am na sérum am na lépp ah. waaw yii pour corps la moom day gome sa yaram ba mu set aussi. pour prise de poids yi tamit. parce que tout le temps nit ñi dañu koy laaj. Uh-huh. waaw moo tax nag moo ngi nii prise de poids bi am nañ ko. ku ko soxla daal mën nga ñëw fii origine hair. te du la indil benn effet secondaire bu néfaste. non non non du am benn effet secondaire baax na tam si ñi di di def sport yooyu. waaw pour nit ñi bëgg a xam ne jour yu ñuy def promo. mën nga dem nga aimer page bu Origine Hair mhm. ci Facebook bi comme ça di nga mën a xam yan jour la ñuy def suñu promo yi waaye en plus de diw ma woon dama gis beneen boo xam ne c'est en rose lan la bii pour ko ñuul la bi pour ko maron la voilà mais bii pour teint maron la am nañ tam savon gommant pour nit ku ñuul tamit am nañ aussi euh, prêt à porter tam ci ginnaaw waaw ku bëgg boo ñëwee rek fii fil fii la lépp daal nekk le ay le la crème la bu yiy nooyal loxo day adoucir ah, tànk waa crème ak seddaay bi daf ciy baax borom tëstani woow yi xam mhm. nga da ciy baax ak bi ana kontaan naa ci li nga xam rek mooy origine xeer ma nga joxe numéro bi fàttali adresse bi di wax ne euh, beaucoup de surprise hein. mi ngi fi mi ngi page Facebook bi kon na ku ñëwul loolu yëpp mënoo si bénéficier wa hein. waaw euh, fii lañ nek rond point Fass si canal 4 bi euh, en face station Oilibia bi immobile 7 appartement 7F 7S mhm. boo un numéro téléphone 77 194 27 24 le 77 467 73 73